Euh, léegi nag lii may wax nii ustaas la intéressé ustaas yi dama leen laaj ab jullit bu tuddee doom kurul ab jullit loolu lu ci islam wax pédri laa bëgg a tudd doom waaw ah, pédri incha allahu rabbi pédri njaay da ngeen ko dégg bu ngeen dégg nugum am na ñetteel bi doom muy góor bu ngeen ñëwee tudd mi jurut laaj ko ma tudd doom ji pédri laa ko tuddee pédri njaay tournée yi oh pédri quel match pour Rafinha quel match pour pédri léegi nag deuxième bii bi ma dugal nee nañu dafa am ko franc may naa ko léegi 3 1 nee woon ngeen bayaar naa moo fi mën maa ko jàpp deux minutes Rafinha dugal benn mu jëli ko deuxième mi-temps ñëw ma bëgg koo lekk Lamine Yamal di tëral fële Rafinha di dugal fii parce que li ko li ko li ko Olmo passe dernière minute da lépp garaaw sarax la bu a léegi nag arbitre bi rek laa mere ci match bi ndax da koo gaaw a sifflé match bi mu jeexee daa a may temps additionnel 15 ñu xam ni maa ko mën te coow li mu bari bari am nañu rees ñi ci ginnaaw yoroon seen i saafara di ko xëpp waawet gee dibir li mag ñi naan dibir dibéer cangoon ngoon dimanche incha allah rabbi weekend lay tombel kenn ñëpp am jot ma jàpp ko noose ko nagaje ko comme ni ma def